D'abord, d' abord damay préciser ne fii ci parti bi ñu alliance pour la république boko ko jëlee euh, benn njiit rek lañu am muy président de la république euh buñ ko jëlee nak fii ñu nekk muy département de Mbour dañu am liñ nane le coordonnateur départemental muy sunu frère le ministre Elage Hadj Omar Youm ñu koy firndelaat tey ne kàddu ga ko waxone def ko coordonnateur tay lañ ko gëna a dëggal beneen bi moy tay lañu gëna nek ci wétam pour servir ensemble son excellence le président de la république sorte bi dañu koy ñaawlu parce que du waxtu wi beneen bi même bu doon waxtu wi jot na pour mu wax ko kaka wax tey mu ngi ci leneen nekkatul tey daanaka ci sunu parti te parti bi dafa am ay charte ku ne xam na ne alliance pour la république dans le département de Mbour am nañu ay structure yuy dox am ñu ko jiite muy femme muy jeunesse muy sage ba ci li nga xam ne nag mooy kuréel gi comme ni nga ko waxee muy APR département de Mbour ñu ngi firndelaat suñu cofeel ñu ngi solidariser waat di nekkaat ci wetu Omar Youm mi nga xam ne mooy coordonnateur di ko jaajëfal nag parce que euh, ku ne xam na ne politique yombul waane moom Omar Youm bi yàlla dogalee ñu def ko coordonnateur départemental li ko war ci njaboot gi mu ngi koy def bu dee sàmm mu ngi koy def bu dee ci wàllu formation mu ngi ciy jàppale jigéen ñi di ci jàppale ndaw ñi bu dee ci wàllum xëy mu ngi ciy jàppale ndaw ñi mu ngi ciy jàppale jigéen ñi bu dee ci wàllu ndimbal social bu ñu waxee Omar Youm da ciy taxaw li nga xam ne mission en tant que ministre de la République aussi le département de Mbour est très fier de lui parce qu'il représente dignement le département de Mbour dans l'étalage gouvernemental Et ça c'est important bu politique de Mbour la te incha allahu soutenir il a tout le soutien du parti il a tout le soutien de ses frères et sœurs de parti Et tey la ñu gën ak lañ ko c'est un film digne du département de Mbour